Euh, asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm damay def benn vidéo bu ndaw par rapport ak commerce yi nga xam ne dañ ko bëgg tëj Sénégal commerce yu ndaw yi ak suñu ay boutique yu ndaw boutique yooyee nga xam ne suñu ay mag a ko moom suñu ay waajur ak suñu ay kilifa di ci dund di ci dundal seeni njaboot di ci dundal aussi ñi nga xam ne ñooñu la ñu yaakaar au même moment ñuy tëj boutique yi nga xam ne suñuy ñoñ ñoo ko moom. dañuy tijji ay Auchan ak grande surface yi nga xam ne maanaam tubaab yee ko moom bàyyi ñun suñuy boutique ñu tëju ñi nga xam ne dañ ci doon suturloo ñu lottu loof dara dootuñu ko am à long terme te période bi ngay def loolu yaa ngi tijji ñoo xam ne maanaam lépp lu ñu gañe seen ay dëkk lañ koy yóbbu gis nga nag nit maanaam danga war a am tuuti patriotisme bu ñu tollee fii crise économique bi ngeen crise sanitaire bi ngeen di wax crise sanitaire boobu noonu réewu tugal yi la gën a laal te réewu tugal yi tey ñoom lu leen ñor moom mooy économie moo tax France nee nañ dañuy déconfiner seeni ñoñ lu yàqu dara dinañ ko def tey Italie déconfiné na ay ñoñam États-Unis déconfiné na ay ñooñam ba Donald Trump di woote yenn états yi sax pour ñu rebeller wu pour ñu bàyyi leen ñu dellu ci seen ay liggéey yow au même moment pays yooyu nga xam ne il paye un lourd tribut par rapport au morts di coronavirus ñun ñi nga xam ne maanaam yàlla musal nañu ba tey ci suñu ñi nga xam ne coronavirus bi dafa leen dal dafa néew nga war a encadrer en réalité les entrepreneurs et les petits commerce mën leen a équiper de façon hygiénique ba ñu mën di accueillir nit ñi suñu économie di gën di dund nit ñi di gën a am lu ñu lekk. nit ñi di gën a am maanaam lu ñu def ci seen ay postes pour mën a lutter euh, ba euh, mbas mi nga xam ne daf ñoo dal de façon euh, efficace. maanaam nga ne da ngay tëj commerce yu ndaw yi maanaam au profit des occidentaux c'est-à-dire que ñun ñi xam ne dañoo jiite tey ki nga xam ne moom la yàlla teg ci suñu bopp réew rek ci li nga xam ne daf koy défendre ci loolu la toog moom mooy nouvel ordre mondial bi nga xam ne daf ko gëm te nouvel ordre mondial boobu moom mooy rayal sa économie au profit moom mooy rayal sa ay commerce commerce commerce yu ndaw au profit des étrangers moom mooy rayal sa au profit des étrangers moom mooy rayal sa marché au profit des étrangers ñun ñàkk ñoo xam ne ñi ñu jiite tey dañoo amul benn pas-pas dañoo am benn amul benn pastéef tey àdduna bi foo dem économiquement moom moo tax nit ñëpp jugaat taxaw bëgg a relever seen ay économie kon ñun Afrique en réalité bu Europe tey di jóg ñun dañuy gën a daanu di leen gën a yaakaar di dem lebi ji ci ñoom ñu ñuy gën a étouffé ñi nga xam ne dañ ñoo jiite dañoo war a xam ne ñoom ñàkkuñ dara parce que tey lépp lu ñu lu lu askan wi war a moom lépp lu askan wi war a séq lépp lu askan bi war a bokk jël nañ ko def ko ci seeni poos moom moo tax tey bu ñu tëjee ki nga xam ne day taaba taaba bu ñu tëjee boutique bu ñu tëjee commerce kooku moom moo ko yëg waaye waaye ki nga xam ne moom moo ñu jiite kooku du ko yëg parce que kooku ay millions yu dul jeex mu ngi ko sàcc saa su nekk nga gis ni par exemple Aline Sall tojee na 6 000 man su fay tojee na nangami milliards keneen ku ànd ak ñoom tojee na nangami milliards ñooñu ay milliards lañu denc te ñun suñu waajur yi suñu mag yi ak suñu commerçant yi ak suñu marchand ambulant yàlla xam na ni dencuñu dara ils vivent au jour le jour kon nag tey li nga xam ne moom moo gën a xelu moom mooy ngeen teg leen dans des conditions optimales maanaam wutal leen ay ay des mesures yoo xam ne wala nekkin boo xam ne dafa leen di permettre ñu mën a assurer seen sécurité ba pare assurer sécurité ñi nga xam ne dañuy ñëw di leen fekk si ñuy mën di commercer ak ñoom dans des condition yoo xam ne maanaam dafay honorer la dignité humaine mais aussi dafay protéger la population sénégalaise mais pas ngeen leen di teg pas ngeen leen di tëj tey coronavirus bi bu leen da ngeen bëgg a adopté la même méthode et la même manière que occidentaux yi méthode bi ñu adopté wala manière bi ñu adopté te loolu bokkut bokkuñu ay réalité bokkuñu dundin te président boo xam ne maanaam africain la da ngaa war a gëm sa ñooñ da war a gëm say xeet tey xanaa kat boo doon tëj nga tëj nasaraan si tijji ñu ñun ñi nga xam ne ñun doomi réew mi lañ ñu liggéey. mais nga tëj doomu réew mi tijji nasaraan si loolu Afrique rek la am loolu Sénégal rek la am loolu nasaraan bu ko defoon dëkkam barki yàlla du fanaan du du du fanaan ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci pouvoir gëm leen seen bopp ko gëm leen seen bopp ñi nga xam ne dañ leen bëgg a tëj ñooñu ay père de famille lañ loolu du yoon cette mesure elle est disproportionnée elle n'est pas réfléchie c'est une mesure farfelue loolu warul am maa ngi jégalu maa ngi jaajëfal ñëpp.